dal leen ak jàmm kàdduy cinquième président du Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar fay la yéene kaay yi xëy di passante seen biir démb la doon amal ay kàddu mi njëkk en tant que président du Sénégal yëral yéene kaay gi di la moom président bés yu naan engagé wu na ngir gouverner ci ak woyof le point activé lu ko naan ko ci ak leeraange son excellence Bassirou Diomaye Faye kay li mbëgg mooy teg réew mi si yoon wàññi jafe-jafe sénégalais yi waaye tamit woo ñëp ci juboo ngir Sénégal gu naat Walf Quotidien moom xëy tudd ko les grands de Diomaye diggante jubale réew mi xeex ger gi fi nekk waaye tamit wàññi njëgu dund gi les éco yéen kay xëy naan ñu Bassirou Diomaye Faye ay kàddoom génnul ci félicité Macky Sall ci organisation bu jaaroon yu amal ci élection yi waaye tamit gërëm Ousmane Sonko bu baax ak askanu Sénégal laataa muy wax fi mu nar a jëmale réew mi yéene kaay gi jëmale xët mu njëkkam ci jaar-jaaru cinquième président du Sénégal moo di l'observateur njaay-njaay ga mu juddoo en 1980 la ko journal bi toppee ba ni muy duggee école ba am ñu orienté ko ci université Cheikh Anta Diop ci lettres modernes waaye yéen kaay gi yemul foofee wax nañu ñu ko orienté Dakar tom naroon dëkk ci benn atelier tailleur waaye tamit wax nañu tool yi Malika yim doon liggéey comme journalier ñaari jabar yi mu yor ak kañ la leen takk lépp journal gi boole na ko dëxëñ ko dugal ko ci xët mu njëkkam source a feelu ko naan ñu jaar-jaari Bassirou Diomaye Faye ki nit mën na ci bind livre journal bi dañu xamal ne bas li mu bëggoon doon mooy policier ba tax mu tante commissaire police bi waaye concours ba jàllul ca la ci concours ENA génn ca dugg impôt et ba léegi ci biir journal yi ñu ñu xamal ne président bi gàddu na ay bor bi ci mujj mooy 10 millions yum leboon ab xaritam ngir ab toolam bu mu bëggoon def xew-xew dëgg ci l'observateur yëral yéenekaay gi ca Koumpentoum la xewee benn sàmmkat moo fa xoj ñaareelam ba mu dee gaay na déedawaay mu tourné taal néew bi mbokk yi li mu lekk leen gënoon a fas yéenekaay yi fii ci Ndondol info di leen ñaanal njeextalu bës ak jàmm